toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Abonnement, ah si formation promouvée bi laa bokkoon fa lañ affaire depuis comme si commune bi lañ souvent gars si suñu amee ay travaux rek ñun la quoi comme nous dëkk fii nous mën nañ affaire bi waaw bon boo xoolee une ñun nous ñoo bokk formation yeneen ñi ay éléments yu ñu jël parce que waa maire bi ñoo bëgg suñuy liggéey ñu jëlaale quelques membres yoo xam ne fii lañ dëkk quoi mais ñun kat yi muy man Mansour ak euh, la police ak Aliou ñun ñoon dañoo def formation bi léegi ñun dañuy jël en tant que ñun ñooy diriger ñu jëlee élément ñoom ñoo ñuy jàppale mais si biir jàppale ñun dem dañ leen wanaal liggéey bi gisoo actuellement ñiy pause nii ñoom mu jànguñu ko de ñun ñoo leen wan fii ñuy commencé pause wax leen nan ngeen posé ñun ñu superviser su amé ay problème ñu ñëw régler ko quoi. formation bi ñi ko doon défé mairie Biscuiterie Promoville moo ko defoon boobu avenue lañ doon défal moy côté avenue Cheikh Amadou Bamba bi fa lañ défé woon formation bi pour def naa matul trois mois hein. wa fofu lañ jàngee affaire yi. waaw ñun nak bi lañ démarré mais si suñu si suñu jaar-jaar teg nañ yeneen façon pavé yu mel nii hein. mais bii nag lañ gën a maîtriser parce que si bii la bii lañ ëpp luñ liggéey mais dañuy teg yeneen façon récemment passé dem nañ benn école Gueule Tapée bu ñu jëloon foofu ñu ñoo teg cours bi foofu yeneen façon pavage am ah, pavage moom day compliqué mais boo xasee ba saari mënuñu wax bii nii lañ koy defee si palette bi muy ñëwee rek déjà dañ lay wan forme bi nan lay posé woo yow ci palette bi rek ngay gisee déjà ni lañ koy tegee mais boo tegee benn dem rek après day day quoi waaw gars yi ñoo commune bi ñoo bëgg def biscuiterie sans sable

waaw moom c'est bien quoi. waaw man de su ma soñoon xanaa nit ñi gën a sàmpa ba pare di balee pavage aussi quoi parce que des fois ñu koñ yoo xam ne dangay gis ni ñi ñoom dañu sàmm koñ bi di ko bale mais am na koñ yoo xam ne moom bon kenn du ko bale man nag sama avis nee naa leen nag soo xoolee carte koñ yi nga xam ne locataires ñoo fa dëkk ak koñ yi nga xam ne waa ñi fa juddoo ñoo fa dëkk du benn. ñeñu ëpp ñee ëpp volonté defar dëkk bi mais xam nga locataires en général ñom sen sen néeg rek la ñuy gérer si biti loolu la remarqué d'ailleurs sax ci koñ bi ñu nekk ni parce que gars yi ñu ne ma leen nooy soo leen remarqué koñ am locataires yi du am du am ki do am maintien waaw maintien bi doy doy doy def mais koñ yi nga xam ne ñom fa lañ juddoo màggee fa mu nekk ay famille je sais pas originel ñom ñom dañuy ci pavage bu baax a baax sinon aussi comme avenue Ouest moo seen tam ñu def ci ay banc

yombul de surtout régal yi nekk si digg bi nii yu dis el yi graal mais yi si digg bi pour nga ñëw wër ko soo deful naa nga affaire duñu duñu du ñu ànd dafa technique la quoi foo nga si dem di dem ba métti ñun ñi ba léegi dañ si am problème mais ku bëgg liggéey moom wax dëgg yàlla su fekkee dañoo soxla élément soo ñëwee noonu la mën nañ la yóbbaale amul benn problème waaw loolu mi ngi dépendre si mairie parce que mairie bi des fois daf ñuy wax jël leen ay élément cinq wala six ñu bëgg liggéey suñ ñëwee fekk ñu soxla élément dañ lay jël suñ la jëlee nekk ba pare ñun dañu yeneen marché comme tey ji am na benn booy bi liggéey fii si ñu booy bi gën nekk booy yaraax bi ñuy liggéey yaraax lañ lañ la liggéey foofu ñu jël ko indaale waat gis nga léegi mi ngi pause mi ngi dressé. waaw maa ngi remercier quartier parce que yombalal nañ ñu ko wax dëgg yàlla am na quartier bu ñu ko duggee duñ manqué dara ñoo ñuy jox ñuy ñoo ñuy jox glace ñoo ñuy jox café añ sax dañ ñu koy indil. à part loolu aussi ñu ngi remercier maire bi maire bi nga xam ne moom moo entamé travaux yi. man personnellement maa ngi remercier Assane Ndiaye parce que man moo ma si dugal ah franchement parce que instant yi dama papa dama occupé sama yeneen liggéey sax mënu ma ko liggéey waaw tellement papa dama occupé aw ma sax temps def yeneen leneen affaire en grosso modo daal vraiment maa ngi remercier commune bi yëpp quoi ak waa quartier bi yëpp quoi di ñaan yàlla may ñu kàttan ak euh, yërmande ba ñu mën a eggale li ñu bëgg fi bëgg def yëpp ñu ñu pavé ko quoi te duñu am benn problème ñëpp fekkee ko tal ko mën ko quoi je vous l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne.